وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر من زن غير الله يغني أو يدر فزاد في دارين ذو قد ودر من زن خير الله يغني أو يدر فزاد بالدارين زوك الدين ودون من ظن خير الله يغني أو يدور فزاد بالدارين زوك الدين ودور الدر والنفو من الرحمن ليس من البدان وسدان الجبار ليس من الفجار والأبرار النور والنفع من الوهاب ليس أنزلنا غير الله يغني أو يضر فزاد في دارين زكاة ودر من زن خير الله يغني أو يضر فزاد في دارين زكاة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 أنزلنا خير الله يغني أو يدور فزاد بالدارين ذو كد ودور منزلنا seetaan ci MKTV di télé Touba tey ci 18 safar ci biir jumaay Touba ji ñi ngi toog ak euh, sëriñ Makhtar Kane jiite communication bi daaira Moukhaddamatoul Khidma bi nga xam ne ñoom la Serigne bi dénk lu aji ci jumaa jeeg penc mi euh, kon ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu doorat lu ci waxtaan. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu mbooleem ñi ànd ak ñoom di seetaan MK TV di rajo bi télé bi nga xam ne moo nekk Jumaa Tuubaa daare bi moom ko di am mbëcce lool daja ak ñoom ci waxtaan wi ñu ne seq ak ñoom incha allah. ok jërëjëf Serigne Makhtar euh, mu mel ne ñu ci euh, jamonoy màggal te ku wax màggal xam na ne jumaa ji ci la nit ñi ëpp lu ñu ñëw ndax fi la ku tedd ki nekk euh, ñu teyit presse bi ñu bëri dañ fiy dajaloo ku ne dangay ngay bëgg image ak nu mu gënee ndax ak loolu ndax jël ngeen ci ay matuwaay te dañoo toll ci jamono yoo xam ne bu mbooloo mi dajalooyee nit ñi niñ bëggee image yi du mën a nekkee kon. yan matuwaay ngeen jël ci loolu. waa daara bi moom fa taxaw ci saytu ak sàmm te loo gis boo ko nosee rek mën ngaa noppalu moo tax danga koo nos nosin woo xam ne nii nit ñi lu bari bari li ëpp ci ñoom bu doon diis la huit yépp danañ jaar ci yoon wi da ci njëkk mooy ndegam jumaa ji foo jaar jaar ci bunt bunt boo jaar. bu fekk nga caméra ñoom dal na orienté dana orienté ci mbir ne la loo bëgg def demal barab sàngam wut carte d'accès bu bëgg def kon ñu bari ki nit ñi bala ñoo def benn benn liggéey fu jaar as fii fii ba fi ñëwee laaj yi du bari weesuwul noo tudd ban organ nga fi teewal. loo bëgg a def noo koy defe koo koy àndal lu mel ni seen seen yaram yi yooyu tontoo ba mat sëkk mooy apt nga pour def liggéey bi bu ci benn manqué mooy kon aptoo doo ma def liggéey bi loolu mooy lan mu fekkoon da ngaa ñëw ma maa ngi maa ngi bàyyi koo ci ab benn organe presse waxtu wi mu ne la nga bëgg a def benn benn benn benn euh, plateau fan ca ci boori minbar ba ku may àndal maa ngi ànd ak diw diw moom ñu xam ko ci leneen dañ lay gàntal waaye bu fekkee nga wàcc sart yi nag ñu xam ki nga àndal kan la li ngay wax tamit ñu xam ko mën koo déglu loolu du am jafe-jafe kon li wax mooy mooy ñun aayewuñ ko jël film waaye daa am film yoo xam ne nii muy ñëw ko ci jumaa ji mu ne ay clip yoo xam ne intro yoo xam ne dafa xaw a jéggi sart yooyu yëpp da nga ko moytu bi jumaa ji ana ko presse bi. waaw kay jërëjëf léegi képp koo xam ne ñëw nga ngir bëgg a film wan yoon ngay jaar pour mën a def ni nga ko bëgge waaw wax naa ko léegi mooy boo yëg buntu bi yow caméra benn la orienté loo bëgg a def nga may filmé ñu lu boo ñëwee noo tudd man organ organ nga teewal adresse organe ba. téléphone rendez bi ba ëllëg jeex ngir ñu ma ñu maan toppaat suñ ginnaaw xool la def nu mel soo ko indee ci heure bi waxoon mooy xam na ne jox nga cee mbir mi bu ko avancé ay 17 ans bu ñëwaatee ñu xool la nga defoon démb soo jox beneen. léegi ku jël ba pare day aajo mu jaaraat fi ngeen vérifier mu jël wala bu xasee jël rek euh, jeex na. lu ëpp ci lu ëpp ñu jël nag dañu des ñëwaat fii ñu ëpp ci mu pare dana ñëwaat fii mais du ñëpp nag. waaye lu ëpp ci ñoom dañ desuwaat fii ñu jël ñu xoolal njëloon ba xam nu mel mooy yoon waaye nag ñu bari buñ del si tamit la ñuy gis tey day dëppoo li waxoon kon ñu bari ñoom ay benn ñaar daa nga gis ñu jalgatee mbir mi waaye lu ëpp ci ñoom moom li ñu wax ñu ngi koy def moom ni nga ko waxee. macha allah jërëjëf loolu am na solo euh, kon ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, ñi lay seetaan. ah sant bu baax sëñ bi ci dalal bi. ñaan yàlla dafa ñu ndam ak màggal gu nangu ci barkeb xaadim rasul wasalaamu aleykum man zanna xayrallaahi yuxni aw yadur fazaada fi daarayni sukaddin wa dur man zanna xayrallaahi yuxni aw

al man zanna ghayra llahi yughni aw yadur fazaaka fi daarayni sukaddin wa dur man zanna ghayra llahi yughni aw yadur fazaaka fi daarayni sukaddin wa أهم الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا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 فروغ وريحان وجنة النعيم فروغ وريحان وجنة النعيم فراغ وريحان وجنة النعيم فراغ وريحان وجنة النعيم فراغ وريحان وجنة النعيم فراغ وريحان وجنة النعيم فراغ وريحان وجنة النعيم فروح وريحان وجنة نعيم فروح الدر ألف من الوهاب ليس من الأعداء والأحباب صباح في إخدام خير الورى بدأ وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر